jëkkër dafay muñ kay muñ leeka sàmm ngoram ragal boroomam te am njël jiitu ak maasam jabar dafay yaru tey muñ neexi wax bañ a wex rafet rafet jikku man boppam na ci néegam aw dafay gore neexum ndañ di gas ak a takk waxam wasew wi wërëy muy mingakub taaram asgor dafay gore tey fonkiy waxam ba du deñ du fen du jëw te du sookeb jëw kadi bi yaaram mbokkay ka bokkay yow xol say waxit di waxam seeni jëfit bokk muy sëb ca bi ngay gaalam buuray ka xam yàlla sax ci topp not bakkanam te doy lu doy le amuk baaxam yorug leeram sàmmay ka sàmmi cëram sàmmub xolam ba du jëm ci mooy du jóg ci ndigal bi sàmm gën giiram jaambur dafay jàpp faw njaamburam ci lu bon du def lu dul noona déeful dégg aw tooram sangay ka sangi moroomam tey jubal ak a jub nekkal di ab sang yow mi mbaate ngay waayam xol yal na sedd ci léppam ñépp faw te yal na ko xëy mujje léppam ñépp mujj fi ñu ñépp naa defe naa am mbaa ñu naa defetaa am ticc yal na nu koy am am gu jàpp ni lool ngërëm dërëm suturaaku mucc yal nañu sax finul te yal nañu nuy dolliku lool ku nuy fexee naxatis lëf yal na nax yi amu nuy nax yépp dig dëgg biir ak biti bettu ko lool ku nuy fexee te jayis lëf yal na jay amu nuy jay bépp faf di sunug may nun gu ràññiku lool siis kañaan ak mbañeel ak tungu yal nañu nuy dolleeka yokku ndam ak daaraaka yëkkati lool ñanuy rambaaj ak ñanuy jël ñépp yal nañu nuy jox seenu yiw jël sunu ay faw suufenu lool làmmiñ wu bon bët bu bon ak lépp luy juru ay yi yatt yal nañu nuy mooy faw tegginu lool wérug yaram gudd fan wërsëg wu yaawu lewet lew domm yal nañu nuy farleeka dimbali lool yal na nawet rafet ak njort ak jëf ak aji jëf ku nekk rëy am lu rëy loo xam ni doy na ko lool ku nekk yal na ko gémmiñ mooy te jàmm ku yiw ak barke dal ko mu raw jot wépp yiw gañe lool ku nekk yal na ko rakkam yépp ñeeki moroomam ak magam yépp muy jël ndam te yàgg fi lool diggante Tuubaa ki njaareem ak njayal na fi taw taw buy waral ñépp fëx ñëw sax fi dëkk ku yiw nit ñépp yal nañu gental faw seeni barab te sax fi diggante bii ndax ñépp maase ci raw waa fépp yal nañu xëy saf seeni yéere te ñëw di jën di a këréccug càggan ak jëfi ndaw mag ñépp ndaw ñépp jaambur mbokk yal nañu sax diggante yaari jumaa yi sax gu tax ku nelaw naataange yal nañu koy jox faw faw ña sax diggante yaari tabax yi jox gu fes gu ñu naw diggante yaari tabax yi rikk dunde fi yow te dee fi dekkee fi dem firdew si dëkk ca kaw yal naa fi dunde ci baaxu yàlla junni bi at yu mànkiwul sog a dem firdew si xol sori wow àddina lépp nga neelam yàlla yal na ko fab ni xëpp fii ku ñëwul fii yal na ñee ku fi ñëw ku bëgg yiw te fii yal na ñee ku fi sax koo xam ni sax na fi yal nay am njariñ yu ko lew njariñ yi yal nañu faf gàddaaye fépp te ñëw ñu dàkk faw fi nun nit ñépp bokk nu aw njariñ yi yal nañu faf gàddaaye fépp te ñëw ñu dàkk faw fi nun nit ñépp bokk nu aw buuru aras yal na nuy saytoo kasanta kawis ba juunu firdew si daal ak gaaya aw fi nu aw fu nekk yal na fa xiine cant xiine fa ndam xittee fa lépp lu sedd xol mu fees ak yiw buurub aras yaa ngi ànd ak say malaaka bu wér di julli faw ci yonnen baaka julli lu yow julli ci yonnen ba ak bokkam yu tedd yëgam ak saaba yépp ak sëtam yépp ak ña aw fa mu aw julli ngënee la ngërëm guy dàq yiw nu raw ba nga ko jox nu ko jox goo xam ni dootu nu raw jullil ci jëmmam ja faw ak ruuga julli gu ni saxal ci naatag ne tax dàkk ak ci jàmm ku yiw jullil ci moomati julli ndam mu bëgg bëggal ci biir ak biti ca kaw jullil ci moomati julli cant guy saxalub xolam ci sedd ak ci guy ak buttu waxtu wu ñëw jullil ci moomati julli mbég sax gu saxal ci nun mbégum cay muy yokkoo ka màgga kalaw julleeti cëg julli buy wommat tiraanga aju sax jébbal nu faw ak lu gën téeméeri junni ñu lew julleeti cëg julli guy jañ aw ay ak jëfi ay ñoddi yiw ak jëfi yiw ñoddi taw ak yiwu taw jullil nu cëg julli guy leeral tey ak ëllëg ak démb ak ren ak déwén ak daaw ak lu xew ci lu xew jullil nu ca julli guy yiw leeral li lépp leeral luy ñëwal ñu nu def cas njariñ yi taxañ ñu dend sëpp fi nun fab sànni nooti nu aw jullil nu ca julli guy def cas njariñ yi taxañ ñu dend sëpp fi nun fab sànni nooti nu aw jullil nu ca julli guy tax ñépp ñeenu ëllëg fa ban ba ñeenu fa xéerul xalxi ñeenu fa yow juneel nu ca julli guy tax bis nu tëdd nelaw yewoo ca firdawsi daalañ mbég faseeki nelaw julil nu ca julli guy naawal nu naag sunu ñoñ ba joonu firdawsi jëlal nun fu nit masa aw yàlla musal ku mucc yàlla musal xaw ci jépp lor bañ ni caa musal yàlla nu rus jéggal nu boole nu yërëm jox nu ngërëm lu deefatul tofal meram yal na leeral may nu jàmmi addinaam jëpp ak tonoom ak suturaam ak ajjanaam yal na may ngërëm lu sax lu dul tuxu ak dëkkandoo yu sedd xol yu dul tuxu yal na jébbal lépp lëf lu nu ko laaj ak lu nu laajul te nu la nu laaj yal na may doylu gu sax sëkk gu sax dakkal njariñ yu rëy yu doy sëkk yi sax yal na nu bett may may yu tànneef bawoo fa moom ak gaa yu yu tànneef yal na nu tàggatal ndaw ak mag ak jigéen te fan teg ci kaw ndaw ak mag ak jigéen yal na nu may tedd nga di mu tedd nga juréy ju sax ju ëpp jépp tedd nga yal na nu may daraja di mu daraja juréy ju sax ju ëpp jépp daraja yàlla nu may àddina dig nu àjjana yóbboo barke ba dugal nu àjjana yàlla nu yokk yiw ci gépp wàll te yokk nu mucc ci gépp wàll yàlla nu sopp sunu jëmm ak sunu jëf jëf ak sunuy ayib te sopp lu nu def nu may yépp yoom te set bi fi nu ndam ci darajay sëriñ bi yàlla nu may yépp yoom te set bi fi nu ni ndam ci darajey sëriñ bi ceebu mu tax ñu ñeenu ñee gu ëpp ni ñëpp ñee sëriñ bi ak yónneen ba yàlla na am ceebam ngënee lan ndimmal mu sedd xol guy mu lennam dëmmul yàlla na fi sañ caan ak wutum dugub bari dugub ji ak gerte gi gën leen bari yàlla na ñu teg pare bi ak baykat yi ca kaw li kaw baykat yi saytu may yi yal ñu jox baykat yi may yépp bu wér te boole leen ak seeni may musal bu wér yal na ma mbay wuyu sëriñ bi wuyunu te yàlla ànd ak yonnenam ba wuyunu yal na ma dog reenum mbay ak sëriñ bi dog faw reenub yàlla ak yonnen bi gaynoo ki yal na ma ko ëppule ku ne te ëpp gàllaaj ak xos ak dugub ku ne daraja diine daara dàgg dëgg yal nañu nuy ñeel aka yokku tagg barke ngërëm sutura mut gu rafet yal nañu sax dàkk ci nun sax gu rafet gudd fan ak wéru yaram xaalis gëm ku ci na yal na nuy mbégam dimnee gëm tawféex akuk jub ak woy ak gu sax yal nañu dëkk ci nun ak juboo gu sax jëf gu wër mucc gu wér farlu gu wér yal nañu bokk na fi faw bu wér sedd xol ak jàmm ak njël ak jaamu góor bu sell yal nañu faral ñépp bu wóor wërsëg wu leew soxna yu jub surga yu jub ku nekk yal na làq yii yépp te jub na am ci daraja yi santeef njëgal gu wóor ak jëfi yu ju santeef yal na am ci tedd ngay ñi ñu gërëm ngërëm lu dul dañati luy juri ngërëm yal na am ci defar ngeen defar defar goo xam ne du aajootig defar yal nañu jàpp xali nag ay ni farit damm tërit tërit tërit tërit ba xam ne kenn du gis ku ñuy bindalu ay lu yàgg-yàgg kenn du gis kuy defu ay lii rekk rekk kay dara moo fajit dara te lu ko may du dara it fajul dara yal na nu yàlla boole nun ñépp musal ci yépp ay faw te bañ nu caa musal yónneen ba ak yàlla ak yónneen ya yàll nañu bég ci nun mbégum cay muy yokkoo kéwéy bañ a yam saxaaba yépp ak malaaka yàlla yàll nañu nuy bégee ka may mbég mu tax saytaane xëy ni ngayam wali yi yépp ña dëggal ñépp yàll nañu nuy defoo defal nu lu suuxal mbër mu nee mayam mboolem ña gëm yàll nañuy yokkoo ka sant ci nun tey dàkku gépp mooy mooykat bu nee ki moyam mbër saxal ci kaw ak suuf ak diggante kaw suufam si yal na ñu dégg dàkkul ku nekk ayam fu yàlla nekk fu waayam nekk yal na nu fas njariñ ba woo neex ak moom su ëpp ndeyam xañuy layoo yal na nuy gën ñay yeeg ñañu yey suuxal ña baax ak ña bon ku ne ku layam ku nekk yal na nu koy saf sàpp faw te yal na nuy ku bon a kay yàqoo ka yàq wayam waa penku yàlla na ñëw ak waa soowu ñëw gu rafet ku nekk jàpp mbiram jébbal nu teg ca mbayam tawféexi ñuy jàng ak ñuy julli yàlla na tawféexi jëf kat bu yàllay gàddu ngeen ji fayam kanoonu bay yàlla na fam bon ba ak la ca gën jébbal nu nuy sant kay wéy wàcc kooku bayam lem yépp lem mucc ak lem nekk yàlla nañu fab lemam ga jox noo ko yiw wéy di wéy te yam yàlla na am gëm gu wér ak jëf ju rafet ak ngërëm ak barke am mujj gu rafet yàlla nu gudd fan te am wéru yaram ak njariñ ak jàmm ñu boole nu yërëm yàlla na am sutura am tiraanga te sori lépp luy waral yaraanga yàlla na am yàlla te am ngëneelam tey dolli ku ragalam ak cofeelam yàlla na am njariñi suuf ak asamaaw te mucc nag caayi suuf asamaaw yàlla na am topp gu nangoof alal jëpp joñ meral jëleew jik cantalal yàlla na am topp gu nangoof alal jëpp joñ meral jëleew jik cantalal yàlla na jàmm di bawoo ci wet gu ne ñu dinu dàkkuloo ay ak tawat gu yal na nu jub faw juboo faw ak ña jub tey juba kay jubalu nit lëf bañ a jib yal na ñu wàcce yërmande ku yiw ci nun tey ëllëg te wasalit barke ci nun seytaane yàlla bu mu jëm mukk ci nun yàlla bu waayam mën a jëm mukk ci nun yal na nu mucc nun ci moom ak pexeem te sunu ñun mucc ci moom ak pexeem yal nu mucc nun ci moom ak pexeem te suñu nga ñu mucc ci moom ak i pexeem yal na nu am mboolem lu ñuy bëgg a te bañ a jóg di ko fexee raas ak wut njariñ yi ñuy dox di wutee karaas yi yal na ñu ñuy dox di wutee karaas yi mucc ak njariñ ki dee fi wut waxtu wu ne yal na nu takkoo fa wu nun waxtu wu ne mbir yépp yépp yal na ñuy jube fi nun yàlla bu mbir mu dee fi bañ jibee fi nun yal nañu wommat lu nu bëgg yët nu léegi te jiital ku nu bëgg yët nu yàlla nu am lépp dee fi aajo tey fajalit képp ku nekk aajo yal na sunu xol sedd nuy serali xol xolub ku nekk fu nu tolloo ka nu barke bokk dal lor muy nu faw tey ëllëg ñu din nu may nu yal mébét yépp daje daje fi nun faw ñi am njariñ ci nun daje ci nun yal na nu jàmm bokk dal ay moy nu teeg ëllëg ñu fal nu ful nu way nu yal na nu am yu nuy jëlëg yu nuy maye faw te am ñu nuy jëlëg ñu nuy maye yal na nu boole faw néega ki baraag di jaam yàllaa ka toroxlu ni ñu raag yal na nu taqoo ki dibee ki kaabus ba dun ñàkk teg ndawal ci benn bis yal na ñu nuy faddalikoo baaki kiwil ñu nuy soola kay sant ba faf raw géwal yal na ñu nuy ñodd lu yiw dinu jañal lor fawu nuy ñoddil ku nekk ak a jañal yal na ñu nuy barxali junnee ki ngeneel waxtu wu jot nuy gën a koy may ngeneel yal na ñu nuy fegaliti sa ki tawat waxtu wu jot nuy fegiti sa ki tawat yal na ñu nuy naatal saxal nu ci lu naat ñii lay diwee ba ne ca àjjana janaat yàlla mi ngi dolli ngërëm ak njaboot gu jub gu am njariñ gu way gu neex a boot ñu nuy rokk si yu faw ak i mbóot yu réeréy te dolli nuy reen ak i buut yàlla ñu nuy gërëm ak ay siyaara ñuy may yiw képp ku nuy siyaara yàlla ñu nuy sant ka dolli cant ñuy sant kay dolli ko faw ak cant yal na ñu safal a kay may lu nu saf te dinu jox fu nu ne ràcc bu ñu sif yal nañu ràcc sif jaxas teg te ndawal jébal nu faw jëpp ñoo dinu dawal yal na yàlla ne ci xol yi sax ci njariñ lu nekk ne ci xol yi sax ci ñun ñépp yal na nu rafet fas lu rafet wax ko te jëf ko sax ca am ko bu rafet fan yaa ngi nii li ci des nag yal na gën li ci wi gënal ko yàlla ki tànneefam gënal nu ko fuuf li des ci mboolem sunuy fan yal na sut ci wéy gën koo rafet fopp gën koo yàgg ëpp ko fuuf li des ci nun yal na ëpp cant fopp li wéy ci nun te ëpp ko jàmm ak barke dàq ko fuuf ya yàlla léegi sunu guruujee fa ngi ni ndolus wàcceete ci may gurus loo may gumbar masawuf wacceeli cant ci biir ak may yu seddati xol yu àppul yu waral waa fépp nuy sunu boof wacceeli barakeeki ndam yoo xam ni duñu lor ci biiram ak mbégi mbégi yoo xam ni duñu soof wacceeli ndimmal yu dul jeex ak njariñ yu ñu ful ci biiram ak xiigi xiiwal yuy waral mere gi wacceeli ndimmal yu dul jeex ak njariñ yu ñu ful ci biiram ak xii gi xéewal yi waral mere giif wàcceel yi angaar angaar ak tiraanga yi ci biiram ak jaagi jaaga kuuy koo bay duuf wàcceel yi ndolleen yu suuxal junni bi million ci biiram ak ñu rafet ab yar ñu mokk daliif wàcceel yi waame yu teel ak jàmm juy jur yiw ci biiram ak doole juy yokkoo ka musle ci loof tural ci biir barab ak mboolem barab yi nu am wërsëg wu lew wu nu doy doy ñépp rekk di ku xiif yaa saytu wërsëgu mboolem nit ñi wërsëgalal nit ñépp wërsëgu deeful wàññi ak a xuuf sotti ci am faw wërsëg wuy jariñ wu lewet te lew nu gën wépp wërsëg teg ca ëpp ko fuuf jébbal nu wërsëg wu sooxal wépp wërsëgu nit ak gëm gu wat gëm gu nekk ak fan wu sut fuuf yaa yërëm yërëmal yaa jariñ jariñal yaa fajit aw maral mar waa ngi nii fajatil yaa daa taw aseetil taw bu tànd bu rëy bu ñor bu bette bu sedd xol xarit tawatil yaa daa faru jàq wallu képp ku rët yaa dalal xel akay may ñépp mbig mayatil faral maral yépp tey jii far gu wér gu rafet sottil ci gàncax gi waamew ndam wu tax mëtil musal ñu ci wow xol faw ak ci wow gàncax defal nu lu tax yi yaari wow amatil dindil maral wi mu dañ fappal maral wi mu set na daldi dem faw dem goo xam ni gi ñëwatil asil nu waame yu ànd ak jàmm jóob ak yiw te boole cay mbégi mbég yoo xam ni yi dogatil soppal bu wér sama jëmm ak lépp lëf lu ma def te def ma waaju la ngëb joo xam ni ji bayitil bëggal lu may bëgg biir ak biti bañ lu ma bañ saxin ci man faw may koo xam ni kii bonatil dundal ma faw te dundal xol bi faw te may koo xam ni kii laxatil bis te xolam laxatil naatal ma faw te naatal xol bi faw ci yow yaa daa fajal ku ne aajoom ak fajatil dundal ma faw te dundal xol bi faw te may koo xam ni kii lëxatil bis xolam lëxatil naatal ma faw te naatal xol bi faw ci yow yaa daa fajal ku ne aajoom ak fajatil ibliisa bon moo sosug bon yal na nuy dawandoo jëmam ja diirug li muy bam faw kay rawandoo bañam ya yal nañu reendoo samtandoo bëggandoo mboolem ñi koy sopp deendoo jooyandoo merandoo mbir yépp yal nañu ànd ak jant bi jofandoo ci nun tesoondoo ci nun ñii goorandoo jurandoo mbër yépp yal nañu booloo takkandoo warandoo tawàccandoo file wàcceendoo fi ndam warandoo guddee ngi ñëw yal na ànd ak guddi guy xala ñëw ñu bokk fam noo ki ndimmal teg ca kaw falandoo bëccëg yi xel seeta ñëw nag yal na ñuy melandoo fi nun na bëccëg yi waa firdawsi yey melandoo tukkal yi saf yanu faat ak saf yal nañu ñëw te sunu tër fawa ngërëm yësandoo wagaana ñam yanu faat ak ñam yal nañu ñëw te duggandoo sunu kër nit ñépp ñëw masandoo wagaani ñam yanu paata ñam ya yal nañu ñëw te duggandoo sunu kër nit ñépp ñëw mosandoo njariñ ya yëfaatul yépp yal nañu ñëw te dëkkandoo àndandoo ràbboo juboo jegandoo na jaamu junni bi ak sellal ko yal nañu nuy yaakaarandoo loola kay ñeendoo ba kàbbarandoo bis ci yàlla nu jël tawfeexam ak xoramam te boole làmb yi fii yépp ay yëfee ubandoo bis leen ci yàlla na mu jël taw fee ak xoramam te boole làmb yi fii yépp ay ubandoo lef maa ngi nii dëkk baa ngi yàlla na nuy fëxandoo tey boole ñépp ni sooj ak seeni fas rawandoo firdew si rekkam sa firdew si rekkam doy firdew si rekk kay al firdew si rekkam suur si kër la gu seddu xol te boo ca demee ba teg ca bët xam ni nguuru yàlla daala nguur moo sedd guy xolub koo man di dégg ak a gis moo dal xelum koo gis ak koo dégg ji wax wóor sa xol du tàng du bax foofee du war war it day neexa kay nux nuxee kay sedd guy ni yóor barab ba day kelkelee kay dàqlem gu ñu jar suukar te waa joofa gis muy baax a kay tane buur yow doo fa rus doo fa ras doo ñàkk doo fa torox te doo fa dox ba dajeeku deeku tiisa ku toor koo gis dalay dox di ñee foofee te doo ko fa ñee njariñ yi la ni gàññeg jàmm ngay bari muur gis dalay dox di ñee te doo ko fa yi wër la ni gàññeg jàmm ngay bari muur sa xol dafay sax ci guy yëg butt foofale faa nga tëdd ci lal bu sedd xol bu yaatu bu foor doo déggu ay doo ko gis loo bëgg teg ca sa bët faf teg ca sa loxo teg ci cant jàpp ko ngoor doo wopp doo wonk doo bon doo dajeeku naqar doo muslu doo moslu lii jar lépp déggale góor doo seeru lëf ndare mbég doo dégg lëf ndare mbég doo jóg ci mbég doo yëgit ab sedd doo yëgu guur doo gis lu jar xule nit foofee te doo fa xuloo jàmm ak saxu jàmm ngay gis foofa ay du fa góor am yàlla ak ngërëmam ak àjjanaa manu suur ñun nga la yal na mu am yii yépp am gunu suur soppal ka def àjjanay firdawsi moo gën a war ka sàkk añ moo gënu añ sopp koo gën a war firdawsi ab añ la teb añ doo ko seeru mu ñëw jébbal la boppam ka koy fab jox la moo kalay joxub aña dem ab añ wutal ngërëmam baam ko boo ko amee am ngar te am ñu ko gar di sopp as ndawa kay neexal lu muy xalafaj as ndaw du may kenn boppam neexalal ka ko yor bu ñépp dee neexal as ndaw neexalal ka ko yor mu fab ko jébbal lañuy xoolee jooy ak a mer kuy sàkku àddina mbaa muy sàkku àjjana yow sàkkul ka def yaari kër yooyu te def ko sa mbër yàllaa di mbër ku ko def mbër nag mu def la mbërëm musal la ci jël biir ak biti saytu sa mbir bul ngal ngaleeti ci ab añ am na sax ko gën ci nit sa ngal ngal na jëm ciw sas te yam ca bu wér waxtaane aw sas a gën waxtaane añ fañ a xam waxtaane añ dumayeeg jëm kaw fa ñoom a kutur man muy defar lub liggéeyam jox ku nekk sasam ka wàcc safiya di waxtaaneb añey ka kolor ab surga ciw sas la yoonam nekk waaye niwul cib añ di ngal ngali cib añ wàccu sas lu ko jar xuppee la xuppe te béglee bégle ñépp di bay ngay xuppe ñépp di bay ngay bégle ñépp sawar soññee la soññi ñu wey dem àjjanaa ka jafeñ te ëpp naa ñàkk dem làkkam ba yal nanu wër boo tuddatee àjjanas la fi yow ba ñépp di bég tuddal jahannama ak tàngam nga moo gën a tar koo xam ni day sëf bu bëggee sëf ba jekk te jag fa teg ci wàllu gu nekkub saaku rekk a ko war koo xam ni day bu bëggee sëf ba jekk te jag fa teg ci wàllu gu a ko ciy nelaw aka yee nit ñee ka xuppee ka béglee kay dagaanun war buurub aras xam nga say yonent yow nañu day koo xam ni kii ca la jox koy mbég yu day nañu day ñenent junni mbégeeg téeméeri junni fabal jox bépp yonent faw nit junni mu doy aw yu du doy waaye lar boo xam ni am na yiwam woo xam lëf mënu koo jeexal mu doy ni la day walil sa lépp ngërëm jox say wali yu ñu jël te walli seeni ngërëm jébbal nu yaa gëni ndey walil sa lépp njariñ jébbal sëriñ sañu jël tawalli seeni njariñ jébbal nu boole nu duy xëppal murit yi yépp ak mbooleem saxaaba ya ndam te xëpp nuy ndam ci ñoom ak mbég musal nu ci dey walil sa yërmande jéppit xëpp xëpp jullit ñi ñépp ñépp te def nu day bu gën day day te def nu jant bu war nag digg bopp bu wér am bopp am barke jëm kaw ñépp naa ma nga dey saxal nu dàkk ci pul ak peq ak ci netax ak ci njariñ yu ni guy xol ni peq te doy saxal nu dàkk ci gëm goo xam ni wér na rafet te jox nu ngànnaa yi jub yoo xam ni duñu dëy saxal nu it ci yow saw yiw te def mu sa mbég mu rëy mu sax mu la saf moo sàkkagul mu na day saxal nu it ci lu sedd xol ni àjjana nun nu sax ca faw ba dem firdaw si sax fa mu doy buurub aras yow le ngay bañ lépp um ko ci nun lenuy bañit lépp biir biti um ko ci nun tërik bañ lenu biir ak biti lépp lu nuy bañ fawu ak lépp loo bañ yor nu bañ ko ci nun bankul ci nun fawu tallil ñayi fawu ci nun def barke fawu ci nun def ngën ji jikko ci nun defal sa bopp ci nun faw ak sa lépp njariñ tabbal nu fawu ci yow tabbal ñu takku ci nun ñu jum ña ca ñu takkoo takku dénk nu nun ca jub ga lu takkoo takku def ko ci nun defal nu luy tax ñu ñuy ngéejoo kañee dinu ñee te def ci nun mbir mu tax mbër yépp jokku ci nun leeral nu nañ te leeral nag nañax li nu jëm lépp li teew ak li wéy tey ree ba kekku ci nun nun ñépp reenu saree gën junni bii million dooree buggal teg ca sayree yal na yokku ci nun umal ci nun jépp lor jooyeeg te um ca yit saxal nu dàkk ci mucc ak ndam saxal ko ci nun ubbil nu buntas ngërëm soo ubbilul te doo ko ubbil ko ci nun nu buntas ngërëm soo ubbilul ku nu ko ubbil keneen it lii dogal ko ci nun ak may gu suuxal ku teew ak kuy ñëw ku ñu daa waxtaane def ko ci nun nit ñépp gis ko ci nun umal nu mooy kat bu nekk ak mooy gu nekk ci nun notal um nu ko teg sa bët seytaane um ko ci nun kay boole ndimmali biir ak biti ku ko soob ñun ñépp yàlla na nu jébbal ndimmalam yu ko soob kay boole ndimmali biir ak biti may ku ko soob ñun ñépp yàlla na nu jébbal ndimmalam yu ko soob te may nu gudd fan ak seddu xol ak ngërëm ak leer ak wéru yaram ak jàmm ak ndam ak lu nu soob te may nu gudd fan ak seddu xol ak ngërëm ak leer ak luy tee nga jóg ni ma jaajëf faw yàlla na ma moy luy tax nga jóg ni ma jaajëf faw yàlla na ma dal doxal ma man saa digg ak ma am jërëjëf luy ma am jërëjëf loolee du moo ma gënal jàppal sa xol bile jox sab sang ak saalal te naa ko yow sang bii ngir yàlla may ma ndigal te bul ko laaji alal yow bul ko jox ndigalit koo gis deful ni le sangam santagul dëgagul ablar bu mujjee di laajib sang jur ak a jox ndigal xamal yow ni boobee lar mbiram jëgatul bul gas ba xóotal nga delluy sakk yow li nga gas loolee di perte gu réy sonn sonn gasal kuy jajji kenn du ko may aajoo ka wut ngërëmam buy bënn dee si ko may aajoo ka ndigal murit buy tëja daanoo mat la waarati sax ngir jom jajee na amul soxlaati sax ci lu baax kuy waare muy miccitoo kay randu du ko saf lu dul ndox ak lal bu nooy ak ñam wu sell wu baax murit bu mel ni le mat nay muslu paw waka daw ngir day joxe ragga kay wàlleekatee nit a baax mat nay ragal mata daw waxtaanam ak barabam baaxul te képp ku koy déggal du jëm ci lu baax boo dee wutu yokk bul wéet ak ku itte jarot murit bu itte jarot doo gis mu wax la lu baax bul yokki bul xaritoo ku yokkikat wutalub xarit bu yow sa war gëm yàlla bëgg lu baax ku yokki day yàqe moo tax yokki bon ku ko def du dem du nangu ku dem yow dee ko moytu bu baax ku yokki ab ëkk lay saf ndax du dem te ku jóg mu fil ko faw fasuwul kenn làq lu baax ñun ñépp bokku ñu yam jëf yépp bokku yam tànnal ci nit ñi ñu gën tànnal ci jëf yi yu baax bul ànd mu kakkudul koo xam ni kii dana tax nga yokku itte di yokkum xel di yokk lu baax koo xam ni kii ànd ngeenas lëf mu wàll la lëf bul ñàkku yow ci ku bon ñàkkul ba jar ci ku baax ànd ak ko yokk ci yow aslëf lu bon bon a gën ànd ak ko wàññi ci yow aslëf dogul ci lu baax sëriñ bi sot soppe may koy pakk faw aki peñ mboolem ku lay noonu may koy rëkk faw aki mbeñ sat soppe firdaw si lay jëm faw gaawe ko mbég ku lay bañit naari lay jëm faw gaawe ko njoñ dolil ñi lay sopp yërmaande ku tagg ku yiw tegal di fab lu ñu am ci coono jox ñala bañ mboolem ku lay bége may ko gan ñu sedd xolam aw yëg yu muy teralew gan muy boroomi njariñ seral nga xol yi teral gan ñépp yaa manu yiw dëkk ak ñépp a ngi dégg jàmm nee na ba yàlla àttee nga feeñ ak jàmm mbàkke ba tey lu ngërëm wëratul cib lar bu jóg di la xeñ ñodil nga nu cant muy ñëw ñëw gu tedd gu sax jañal nga nu tawatit muy wéy ba mujj nu fañ naatal nga kër yépp ak ñépp waame nga yow wudul séwét may nga nuy mbooloo ki bekkati peñ sa wax yi suuxal na mboolem wax ju nit ma wax sa jëf yi suuxal na mboolem jëf ju nit masa jëf sa jëmm suuxal na mboolem jëm mi nit ju nu gis ak jëm mi nit ju nu déggoon yàlla may na la lëf kenn mus la mel ni nga mel kenn dootu mel ni nga mel kenn mus la jëf li nga jëf kenn dootu jëf li nga jëf فبارك الله رب العالمين معا فيكم وفينا معا يا شيخنا jërëjëf sëriñ bi nun bëccëg bu jot bàccal ni yow ngërëm mu rot bàccal ni it barke mu rot ñuy sant kay farlu di for te jëpp guddi guddalal sunuy maqaamate fulal sunuy jëfit te sellalal sunuy njaboot ak sunu kër te sépp saa nga ni fi sunu xol yi itam saa fi sunu kër yow seen saa bul jóg fi nun mukkati far waxtu wu jot dalal di wax yàlla mu dal nuy jox a jox lu nuy mébét yow loo ko wax dana ko def te du ko mer fegal na ci ñëpp at bu nuy taxa tawat ak atte buy taxam nawet di gantu len na teeka mar tamay nu nag ku weer fanweeri mbég ak fukki leer te bu mu tàggooteeki leer mu këkk yu ni xasar te gépp noo yow nooyalal sunu wax yi nag sunu xol te may nu ak xol bu ragal yàlla te gëm ko gëm gu garam nga guy tàbbal ngërëm ak dugubal ndox ak xoram ku la farul ñàkk xoram ñàkk dugub tàbbil nu far ku jëm ci ab dëkk xeebu ngir du yegg du dem yàllaa di dëkk ba sangi ngir mësu bu ko dem baagaj gojey maye am ndox fab koroote ji yow tafii di jalle ci géej ak dex xelay maye ndam sa sang raase na mboolem yi nekk ba ñëw bul raasi lëf lu ko muy yeewul te sàkku njëgam yeewul te am ci mbiram yeewul te raasu yiwam kuy raasi lëf lu dulub sangam du for ndaracam yàllaa di yónneen ba yónneen baa di sëb sëriñ it mboolem li ñuy wute ngee sab sang yor na nga xam ku yewu noppalu noppal ñépp kuy nelaw day sonn sonn le nelaw baaxul du tax nit a am yeewul te farlu te bul raasee te weesu sa yëf kuy raasi weesu yëfam forrit ci def ci ndabam nit ñépp yàlla na nu yeewoo yeewu jar bu wér te bokk yam ci sunuy dab képp sant gërëm sunub sëriñ daala xam luy dëgg-dëgg mbégam ci nun te na ko am ak lépp luy mébétam moo xam li muy wut ci nun moo xam lu sedd xolam ci nun te na ko am ak yiwu xel masa dem te yal na yàlla ni cas waa penku dellu ni cas waa soow jox ko mu jël ak may guddee xalam yal naw fanam ak sunuy fan gudd nag nu juboo te bokk sax ci lu koy dégloo di sant ka dem alhamdulillahi rabbil aalamiin ndaxam firdew si rekk kay këru mag yàlla nay sunu kër leeram gu sedd ga ak leer leer ja ak na mu mel xalam ko mën naa waral ak jaama bég ba sawar jàmm ak tiraanga fa sax ak xii wala mbégi mbég ak soxna yuy seral yi xol guy yuy faji mer naataange foofa la am ak kër yu jag yu rafet yu feese kii yéere del ak ñam yu gën ya ne tax ga foofa ne tax ak jag ga foofa la jag doy naa xalam doya dëg moo faw wa muñe lor taarub barab booba doy na jaama yéem ak a wax taarub ña fay nekk doy naa yéeme yàlla ba ser ay mooy na képp ku jëm firdew si yàlla na nu jëm firdew si rekk ba yegg ak jàmm muy sunu kër njegam dangay fale seetal yow ku jàpp ci yow nga fal ko faw te bul fal yow ku jàpp ci yaw di may ku jàpp ci yow tey xañ ku jàpp ci yow angaf gu réy la ci yow mi mbaate muy yëfi ndaw seetal na ngay defe bul fab loo gërëm di ko jox ku sakkuwul sa ngërëm bul def lu dul jëfi yiw defal ci say dab te bul def yow ci dab yu ko moy nit ci dabam dong lay def yow jot na lu xew falkat bu nekkub dagam lay fal du fal ku ko moy sëriñ bi fal nay dagam til gaaya koy bañ a aw foo xam ni fii séddiwul doo seeru ñax di fa sax ku tooyalul xipp sab xol doo ko may lu mu naw ku bëgg am gàncaxum ndolleen gu jub gu rafet na ngay teral gaaya lay jiitu ko féete ca kaw amub yaray tax ñu xëy fam nit ñi tegg ca kaw ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw amub yaray tax ñu xëy nit ñi tegg ca kaw ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw ab yar la dee faa wuteeg pal nag ba am ko te kët ab yar la dee faa yoreeg pal noo ngi sant ka daw yarul tegul ñàkk ab yar ab yaray sa njariñ ku ñàkk lu yar du ñàkku pal ku reewa nelaw ab yar lañuy waajaloo jag-jag te yow yaruwoo bukkee la gën fopp rëy rëy ku bon nga ku sew aw yàpp duufa ca gën ab donga ca gën jabar ju taaroo ca gën joo xam ni xol du ca waw ab sang sant ca gën ab lar mu ñey la ca gën ak ceddo tuuba ca gën tey rek yiwu ko raw koo seel farloo ca gën muy yàlla wàcc ca gën ab xol bu laa ba ca gën bu yéene jàmm ku yiw ku jikko woo tabe woo teg ca rekk ca gën kuy sant dollee ca gën ndax yàlla cant garaw sëriñ bi moo di sëriñ bis ci baa di bisit firdew si rekk di kër saytaane moo mata daw sëriñ bi moo di sëriñ bis piñ ci baa di bisit firdew si rekk di kër saytaane moo mata daw teg yi na gën lépp barke ëpp lépp lu rëy ñun ñëpp yàlla na mu war yi yaari sàll baraw sëriñ bi fam naa samay mbir teg ci sa loxo man dëggal mu faw te jox nuy mbég dugal mu ci yow naatal nu nun te saxal naataange faw fi nun musal nu yit ci lu dul yow nii mosal nu ci yow mboolem ku nekk ci kaw suusi te yéene ma lëf loolee mu yéene ci man mii lépp yaral na ko dal ku yéene aslëf ci man may naa ko yéene jafaf xanaa ku yéene ci man aw yiw xelam war a dal mboolem ku nuy soxalub sox yal na sex la mu sox soxam ba dellu ci moom ak tëf jëyee ko ca njël ñag naa ba noppi ku dal ca ñag sa bopp nga lor kuy soxam na sex faw ku yéene si na ko jël sëriñ bi laa man fam naa ko faw ñagoo aw mag taxas bu ko mooy moo gën taxas gëniwal kuy gor taxas ak a ñag may xëy di fet di li gëm kuy sonn ci fitalit may sonn man ci ndigal man dugg naa ci sëriñ bi yal na dugg ci nun def naa ko mbu bëttu bay sol naa ko yal na nu sol def naa ko ak léemu léemoo naa ko nag sama kër léemoo ko it sama bopp ak kuy seral sama xol ngaa réew nu wër nu te ñag nun ñag bu tal bu nu wër kuy bëttu ñag aka tëb ñag baa ngi gudd na tal bii ñag du ñag bañu daa sàqee ka bët aka tëb kuy dof ba tëb jëm ci ñag di dee ñu xëy ko gasal kuy daw ba dugg ci ñag di raw nga lor rawu ay dugal ci ñag bi ba dootoo xam na bi mel man dugg naa te dugal mboolem ñi may may mbég ñun ñépp yal na mu jàmmoo yàlla bun dara dal jàppal ñi dee defi naw kee xarit ak i kem te boole ñiy dund def ni want rekk te jëf defal alaaxira it muy dëgg dëggi sa kër te jàpp àddina def ni gent dëddu ko faf fexee la jël ndam fa mbooloo yay xaloo dajaloo te bul fexee dajalewu góor ak jigéen ak yëpp kuy denc yëf ak a jàpp nit di wéttalikoo boo dee royit bu sa xel daj roy ko ngir dafa dof kuy denc jur na nga denc jëf te wétliku sab sang ak yàlla miy xoolee ka gis te du xef bul roy te bul ñeeku dul koo xam ne gis nga ko muy ragal boroomam a koy doyloo ko def la ko saf xamal ni kenn amewul lëf kët ci nit ñi ku dul ku su nit kii rekk moo ame lëf boo saytuwan nit ñi ñépp seeni yëf te amoo ak doy du la tee def nit ku bon ku woyof te donte yow saytu woo ab tànk bootu la nit te doy liit ñépp gis ngay mbërum rëy bari laf ak doylu rekk a jafee def waande jaamu guddul ak doylu gis nanu mboolem kuy jullit di ko def jullee ki wér daa ki koor ak jàng ñépp a ko def teg doylu tuuta ko def doylul ba am jërëjëf ñun ñépp yàlla nanu am ak doylu faw te am jàmm wér ak fan wu gudd ak ngën ji jëf ju ñu jëf naa jóg te faggul ñi fay sax ak ñi fi yewi koo dund ak wér njariñ ak mucc ak gëm ak bàyyiku naa jóg te faggul ñi fiy sax ak ñi fi yewi koo dund ak wér njariñ ak mucc ak gëm ak bàyyiku mboolem ku fiy jekki mbaa muy dem te yóbbu ndigal sëriñ bi yàlla na mu gaawe walla gaawe ko ko man ak ñi fiy jekki ak mboolem ñi fiy bàyyi nit bi yal nanu am xam-xam bu wér jëfe ko xam dëgg ak sax ca lii am nde lu dul xam dëgg ak sax ca mbooloo na ko xam dëgg ak sax ca di yiw nde lépp lu dul xam dëgg ak sax ca du yiw yàlla seere na ko àddina day mujj def ab gent kenn du fi des ñéppay xaloo tuxu moo tax gaaya xam fase ko koo fi gis lu mu jag-jag-jag ba dee fi ko ñee balaa ëllëg nee fi huuhuu deega yóbbu na ko ak jag akuk jaga dee yam sax fi àddina ji ngir loo ci gis dana deñ lii nee ca jàkk-ja ko luy deñ ci nit du lorit seetal lu dul deñ ci nit yow nii nga jóg wuti ko te lu baax ak jëfee dul deñ ci nit lu ko moy bu nit di dee loola deñ bokkam ya daw fa bi ko ñu jekki ak ñi xaloo dem yóbbala njëla ngi kuy dem na fab yóbbaloo kuy jekki fab wali ko koo xam ne def na ko yóbbal mucc am njariñ it koo xam ne def na ko njël nag jépp lor sori ko bi yàlla attee nga def nag buntu yew la yow bul def lu yegg si jël loola kon du rafet góor ak jigéen ak mag ak ndaw ñépp nekk fi yow te seeni wërsëg fi yow lay dox ci waxtu jot yewul ku dee ci defar loo muy nelaw rafetul ku nekk jox ko te fab ñuy sant ngay gërëm it ku dee ci séddale loo day jox ku nekk yëfam te fab yëfam loolu moo gën moo di sax yëfi nit ku jàll day jàlle boo jàllee ba noppi jàlleel ña jàllagul kon nga am ndam yàlla wóolu la it jagal sa bopp te yam ca yiw la waaye du ndam lay ndam nga jag jagalu nit boo defee ni le mat bul fàtte mukk sa bopp ak nit ku jàpp ci yow bul fàtte it sab xarit bul fàtte benn jullit koo gis mu sopp la yàllaa tax ba loo jële nag ca yàlla war na nga bañ ca fàtte kenn yowit te fàtte ak càggan ak mooy yàlla ñoo xaritoo bul fàtte kenn te bul sàggan ci menn mbirit koo xam ni kii dafa laa doyloo ba dénk la lëf farlul ca dénk ba ngir moo di njulit di ngorit ku saytu nit ak yëf ndinkaane rekk la yor te saytu ngaw nit ak yëf farlu war na la kët lu dikk am nga ca lëf koo saytu am na ca lëf seddul te sedd sañoñ lii daala jub te rafet lu dikk am nga ca lëf koo saytu am na ca lëf séddul te sédd sañal lii daala jub te rafet xamal ni yàlla bu tijjee buntu kenn du ko tëj te moo la tijjil asal buntu ngërëm gërëmal gërëm ko sant ko ngir cant ngërëm ku ko def mayam ga dolli ko waa ndeb sant kat bariwul koo gis boroomam da koo may may gu réy muy jooy a kay jalu lii moo tax ku am bariwul xéewal dugub la ju ndaw te cant koy nit xel ngir cant moo di tawub xéewal ku sant doyal koo xam ni sant na cant nag toolam ba dal di maral koo xam ni may na la boo santee mu dolli la lëf kuy sant faw di am yàllaa ka yokku alal koo xam ni mboolem moroomam yépp dee na mu des muy xul te santul boroomam yàlla lii rafetul te yàlla nii bu ko sooban kenn du jooy aka xul kuy jooy akay xul bu deewoon dootu jooy aka xul ak moo gën ku santul mooy na yàlla bu biir tellar mooyub sanga koy tax muy dajee ki mbugal sëriñ bi yàlla nan tegal nun wépp xeetu mbugal fegal ko képp ku nuy àndal te far nu bégal alhamdulillahi fas naa yéene tàmbuli tey ak goo xam ni dootul dog tonoo gi dogul alhamdulillahi fas naa yéene tàmbuli tey ak cant goo xam ni dootul dog te noo gi dogul te noo gi sax bu dogee may sant faw ndaxam ngir yàlla may na ma ak noo at yu yàgg asal koo xam ni xam nag ma yam nam tollu kooka du man saamay gi xaw ma ko man saamay gi ëpp na xel koo xam ni xam nag ma yam tollu kooka du man saa may gi xawma ko man saa may gi ëpp na xel man mii duma dof duma yéefal te dee suma xas te yàlla nii bu ko sooban yépp bokk ma dal man gumbawul ak giwul wóppul te ñàkkuma lëf lu dul lu ban gaayi man nii nag tawat wëratul yow ban ba bépp murit boo xam ni jóg na fi man may ko wiiw ak pay gu réy may mam murit bu ko gën mboolem ku dëdde fi man dal may wutal ñu ko gën dal may mayit ñu ko raw dal may tofal ñu ko man yaa gën alal gënu nit fam naa la wéttalikoo fam naa la mottalikoo am naa la dootuma bon sarax nu donga yu dootul jeekitee na ki mbég ba kuy dem képp kuy ñëw far ni képp fi man koo xam ne jóg na fi man wuutal ma koo kële yow rooful ci man ak ci saa waa kër te may nu kattan roofal ci nun barke ak tawféex akug rafetal ak cant yàllaa ki ndollem ak nawet bu yéen feesal nu dell ki teggi na ngërëm ak yiw ak jëf ji yiw ak rafet njort ak tabee ki leeral nu leeral sunuy xol leeralal fu nu jëm leeral fu nuy nekk dàkkul nu tawat ak i fen abal nu faw saxaar mucc far mucc tëj nuy mucc kay wéy ba dem firdew si wàcc fanum danoo tilim yow ngay def gu yaagu lewet laabal baaxal nu def nuy ron yu sax fi sa ron danoo tilim bon te yow ngay def gu yaagu lewet laabal mu baaxal nu def nuy ron yu sax fi sa ron njëgam danoo bon te suufee suufe bay bëgga dee yaa tax ñu jëm kaw a jëm kaw may nu ak kawerem damay lu yëkkatiku mbég ak ngëneel ak ndam teg ak wér gudd fan ak mucc def mu ñu gën sëriñ bi noo di sa gàncax bay nu mbay mu rafet musal mu cim ñax te ñoo ñooñak bëlëf gàncax bay nu mbay mu rafet mu cim ñax bëlëf du nu ruur musal mu xaw ci bekkoor ak maral ba nu xëy ñorxom mu sotti caleet ak jàmm yegg buur kooseeru muy daagu dundam baa di am nawetam nawet bu gudd day waral kuy bay lu ta bay góor afan wu gudd wu barkee lay waral nit a am loo xam ne lii te na maasam biti farata ko biir ñaanal ñu may la ku ñaanul ñàkk yal na mu sut ci nit ñi aw fante gën cee tandu ëpp ci muur koo xam ni kii dañu ko wan mbég mosal ko ci lëf ko ci lor war naa dagoo dagu buur koo xam ni mboolem moroomam yépp yépp a ngi dox ñu fab ko teg ci saxaarug cant màgg na nguur koo xam ni kii dafa jajjul bën ñorle bayul far yegg nag te doxul war naa gërëm war a suur lu dul siyaare ji daal ak cant wéy na ci man ñun ñëpp yàlla nañu nuy dolli yi ngërëm ak i wuur ku nekk xam na na muy santeŋ mayam ndare man ki nee fi tegg ca kaw dàkkul ma tiisa ku toor yaa ngi jëm seeni xel ngir bëgg a jëkk ci ndam ñu teg ma man fa ñu daw jëm jox ma ndam la ma ngoor gaayaa ngi jam seeni xel ngir bëgg a jëkk ci ndam ñu teg ma man fa ñu daw jëm jox ma ndam la ma ngoor may gooji suuf sas man bay naa ci kem la ma man te xaajumaa jéele maa ngi mel ni koy sog a door moo jaana may sante man saa may guréy gi ci kaw ak may guréy gi ñu may jox nag ci suufa karuur sëriñ bi sant la lëf sant naa lu ma man ñun ñépp a ngi bu nu lëf ruural nu nit bu nu ruur yow yeetekat bi la yeewul yaa ngi yeete ba far dolli nelaw ngir dangaa nar kenn dootu nelaw yow yeetekat bile yeewul yaa ngi yeete ba far dolli nelaw ngir dangaa nar kenn dootu nelaw loo yeete yeete du tee ñii yeewu ñii di nelaw ñii yeewu delluy nelaw ñii dëkk far ci nelaw ngir yàlla yeete na yonenam ba yeete ba dem sëriñ bi yeete te teewul joppa ngi di nelaw xamal ni kuy nelaw ak kuy yeewu faw mu am foo toll gis ku ñu yee foo toll ku nelaw doo ñàkk gis kuy nelaw doo ñàkk gis ku ñu yee mbooloo du yewu ba daj mbooloo du bokk nelaw yëgal misil maxa ak njàccaara fi xala am kuy dellu ci nelaw it bul dellu yow di nelaw ku bëgg ñépp di gis yow rekk sil maxa far ku bëgg yee képp nit yow daala far di nelaw yewul amaana nga gis kuy soññ ñépp a ka yee ba ñépp yeewu te kat moo ëpp ñépp nelaw danaa la jox sax misaalum kaw mu fes mu rafet te dëgg diglu ko ak sab xol te tuubi nelaw aw njur lañuy daate saatus wat ba saatu sa wat te xam ni njuru wadu wat ay tuuta ñàkk nelaw ku nekk fiw nit te yor aw ñam na lekk te jox ku nekk mbaate mu bokkal nit ña kon du nelaw bul def ku dof saytu aw ñam rekk doy na ko ndam ku saytu ñam wu mu lekkul tey damoo ka nelaw sëriñ bi yal na nu may aw ñam wu sell wu nuy mus faw wa tey yewwoo mbir ci ba faw bu naa ci saa jëmm ji tey mus lu nelaw man tàbbi naa ci saxaarug ban ba ak sama ñuñ moo nuy bu nuy yewwoo faw mbaanu nelaw def naa ko ak léemu léemoo naa ko nag sama kër léemoo ko saa waa kër ak saa bopp man ki nelaw def naa sama nit ci biiram def ci saa bakka nit yal nan fegal lori gaa yi yeewu ak yi nelaw te dénk naa ko ku may yaakaar akay wuta xam te yal na yee ci nelaw mboolem jullit bu nelaw teg naa ko it sama diggante kiti sa ki loro tey ak ëllëg yal na fekk tiisal lu bon ci nelaw te jàpp naa ko sañee saa bopp ak sama jëf ak saa kër sama waa kër ak murit bu nelaw te yal na may ndimbalit koo xam ne may nanu moom ndimbal te boole nu xawit ci jépp nelaw jigéen de xarit am na lor am njariñ te lor jaabi sàggan ci cant ak ci duy ku sës rek ki fi dex du xam ak ndox te loo réer ak xam yabental ko dey yabental ko rek kay jurub càgganak bàyyi cant ak duy balab nii la day njariñ laa di am gii nga am ndox mu doy di fóotee kalaabal akay santi may amub yar ba doo xuus akay wey balab di yam nag fi ngay mucc ngir yewu cëy sori dex ba tey am na lor am njariñ te lor jaadis ak ñàkk am ndox mu doy ku nekkul fi ak dex ndoxam duutu doy du yendal te mbandam du noppeeka dey dafay xam ba dee àqi ndox waaye nag du gis ndox doo am ndox ba mar xëy ko rey njariñ laa di xir ci ndox ak ñàkk lab soreekuk jigéen lëf la làmboo rëy ku sës rëkk fig dex la ak dex di rey ku ndox rey niwul wan ca man din ma dey soreeku jigéen seeni lor yal na mooy sunuy jëmm mooy képp kuy tuubi mooy te seeni njariñ yal na booloo ci nun te sës faw nuy sant kay daw daw di duy sëriñ moo di ak dex na ngay xol gileeg dex ku bi sëriñ moo di ak dex na ngay dégge xol gileeg dex ku dul dégge xol doo ci bi gawar bu fasamte lu muy laaji fas xanaa dof ndekon day defar aw fasam gawar bu fasamte lu muy laaji fas xanaa dof ndekon day defar aw fasam ku yor wenn mol mol wate mokk far mu naa jox ma téeméeri mol luy mbiram ku boppam la jël mu réeréy mbiram bu dee bëgg mbooloo yorul am xelam ku yor am xelam dafay jàll wéy ba noppi fexee jàll yow nang ko xam balaa kenn matal kenn paasam ba mat ku paasam matul du yóbbu du dem ndegam yow danga bëgg am wépp yiw wutal yàlla wut sëriñ wut ngërëm bariw nit lu muy faj du tee kenn dee ku dee nag du ànd ak lu muy ay jëfam ku dul def bu dee seenu nit jub bi daw na wattoo wutiw nit wutiw nit du ndam murit lay ndamam di xëy aw ndigal ba mbooloo ma xëy jot ko def ay laram murit buy wutiw nit du ngeen gi murit di wootee kawaare du tax kenn gëm ku xam pepp am ndox ami dëkkandoo wutil pepp wut ndox te wut nag xoram ku def nii ma wax dal am képp nit te koo bëgg a gis dal koy gis ndaxam ku woo nit te yor peppakum ndox mu doy mu jóg dal di lay wuy ak waa këram ku ñàkkum ndox ak pepp tey woote nag ba gis kenn kuy mer na mer ak bonam ku xam ndab lu fuqul te set dal di duy ku xam ndab lu sellul te sangam dëlul lu mooy ndab lu set te wér waral ku baaxul du am sëriñ baa ngi kuy set mu dal lay duyal te dal lay yabal nga ànd ak ngërëm sëriñ baa ngi koy set mu dal lay duyal te dal lay yabal nga ànd ak ngërëm doxal saa digg ak lépp loo xam ni lii amul ful la yow ngën ji béppub sëriñ te def na murit dëgg boo xam ni bii mbiram mépp far nay ngërëm ak njariñ te may mag cofeelit ci yow guy waral lu ñuy sopp far mel fi man nit këriñ ba góor ak jigéen ak fas ak ab dërëm ñu mel fi man nit gunóor ak wetañ na jur ak am koy am kepp nag fi man faw jiital ma yaaman te sañ te saafan wi guddal ko may mag wér ak sa jaajëf judul tabbi koote ka dañ